ñun yéen da ngeen war a wax Bougane ne ko Ahmed bu ñëwatee ñun du ñëw. <laughs> waaw vous devez lui forcer. Ah, alaaj doom bàyyi ma daane. mbas maa ngi fépp ngeen loxoom ba déglu ma rek déglu ma rek alaaj man man sa fetu ba euh, Fatmata Diop euh, Mamadou Fofana euh, non Younoussa Pikine lay jóge. mooy <laughs> dangereux léegi ñun yéen da ngeen war a kaas. takk ay morsoy xonq. ngeen wax ne ñii buñ tegatee seen tànk ci rajo bi ñun du ñëw. ñëw leen garaawul. déedéet on prend le risque. déedéet déedéet. ñëw leen on ne devait pas prendre le risque alors déedéet. te lii professeur war na cee wax ak Abdoulaye Diouf Sarr. maanaam noo war a continuer. maanaam teg ñu suñuy kër di ñu jël téléphone. waa léegi jël leen ñu téléphone léegi comme que mënuñoo ñàkk ci. non garaawul man ñëw leen. lii dee neexatul. laaj balaa ñu la balaa ñu la confiné. yow yow yow alaaj ñi nga tudd daa doy waar de ñi nga tudd ñi nga tudd noonu mën a tuddee. ci ci ci ñan ci ñan. ñi nga foog ni ñoom wax nga toog. yéen ñi. bii nu mu sotti di ci laxasu lépp dafa dafa. day juum sax si ceeb. ba pare. sama waa ji bilaay li ngay wax dëgg la. Ngouda saw mii. Hmm. nee na jamonoy campagne bi alaaji. Hmm. yu gënoon a seer ay masque la politiciens yi daan joxe. t-shirt joxe t-shirt. Hmm. de valeur ak ay lakos joxe ay casque casque ak baxana joxe sandwich joxe ay tissu joxe carburant jo joxe joxe. ak campagne bi joxe Pire Diop. tey masque sax mënaluñ ko seen seen seen. ay masque ngeen jox gars yi rek mu tëleen tëcc. tëleen tëcc. mën a forcé leen di ngeen ko takk force. ah, ah. <laughs> mais jamonoy campagne yenn yenn communes yi ñaata ñaata millions lañ fay dépensé. tey jii communes yu bëri yooyu gisatoo sax ñooñu ña daan nekk ci communes yi. parce que élection amul. Ah, askan wi danañ am seen fula. dañuy bàyyi dem toog boo leen déggee élection la. Hmm. ñu ñëw woo yenn ci seen i délégué de quartier yenn ci seeni i imam déggoo ma de. Hmm. ñëw toog séddaleem ceeb bii doo ci gis ay maire yu baree bari doo leen ci gis. ndax leer na leen ne alaaj mhm. bu ñu leen joxoon un milliard de tamit du mate seeni i commune Sénégal ni kër yi bindoo la mhm. déggoo ma de mhm. da gis benn kër Mansour Diop nekk fa ak jabaram Ahmed Aïdara ne fa ak jabaram ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay Daouda Gaye ne fa ak jabaram benn kër ngay gis lu tolloog ñett ci ay borom kër yoo xam ni bokkul njëltam teg ca njëlt ñoo bokk déggoo ma de ñoo bokk benn ëtt duñu ay locataire de famille te bokkuñ jël. mais jël exemple suñu tasu démb bi rek foofu boo fa yóbbu woon benn kit. waaw léegi alaaj coow mooy judduwaat ñu fii am mm-hmm. ménage. Mm-hmm. njóobeen yaa ne fii wala njaayeen yi. Mm-hmm. dégg nga. léegi ñu bind leen. léegi nag bu ko defee nga yóbbu fa ñaar fukki kilo ak juróom genn wàll saako. léegi affaire bi nan lay demee. day waar père de famille bu ca ñoom ñett dañ leen ko war a séddale. bu ah, dee fukki kilo ak juróom nga fa yóbbu ku ne juróomi kilo. <laughs> kooku mën naa pousse weer. ñetti fan. mais kii ku ne ku ne ku ne ku ne juróomi kilo. ñetti fan bu fekkee bu fekkee. te bokkuñ jël. bu fekkee ku jaboot nag moom. dara ah. tukki. man li may déranger mooy le fait que duñu am man foofu moo may déranger parce que dina am ñoo xam ne dañ leen ko jox te am ñoo xam ne ñoo ko gën a yeeyoo duñ ko am ñeneen am ko. ñoo xam ne au moins am nañ benn ci seen famille koo xam ne mën na leen jëndal kit boobu am ñoo xam ne amuñu fuñ ko yaakaar te duñu am. ma ni nañ leen ñëwaat ci mesure barrière yi. muy dëgg hmm? sensibilisation bi ci corona gi nañ ko yokk en naa ceeb bi di yegg si ca mairie ya. Hmm. ñu lijjanti ko dégg nga. waaw hmm. ah, léegi nag déglu leen professeur Seydi professeur Seydi alaaji. léegi xoolal ay sous-titres rek lay nekk. à droite à gauche gauche gauche. foofu rek lañ koy taf léegi ci journaux yi sous-titres yu ndaw wala ñu ñamal ko ay off. day góoma de gis naa professeur Seydi léegi ubbil journaux hmm? gis naa dégg nga te professeur Seydi nag instant bi ñu toll nii nag. la soxla moom rek a war a wax la soxla woon waxam war naa yokk. moom wax communication war naa yokk sensibilisation bi war naa taxar naa se. gis situation bi am ni da ko waxoon temps yële ci ginnaaw donc vidéo yooyu leen jël réactualiser ko di ko tegaat. parce que dafa waxoon lii nii am. di ko teg moor yii nii. da ko waxoon avant muy am. parce que am na fu ñuy àgg ci maladie bi duñ mënati. Euh, tëye mbir mi. c'est vrai que tamit dafa amul jot boobu parce que man tamit essayé naa ko pour ñu jot ko moom ci tës bi mais comme kaay dañoo xaw a bari jotam bariwul aussi. ah baax na en tout cas daal baax na. ana bagaas yi réer. Hmm. tës bi tey day tës bi tamit tey na waar trop. Hmm, tey yi moom hmm. ah yee. c'est que tis bi tamit est-ce que duñ ko xaw a arrêté ba ci kanam. mënuñu tamit yore tiitu corona gi ba pare tamit euh, yenn xalaat yi teguwaat suñu kaw ah. dégg nga Awa Ndiaye magu maman Ngeraar. mu ni. nee na bëgg lu yomb rek xëy laa wax. mais benn problème bi ñu am ci bu ñu waxee bu ñu waxee couvre-feu day wàcc dix-huit heures. bu wàccee dix-huit ba sept heures. léegi nit ñi. xanaa duñu ndogu nit ñi xanaa duñu xëdd euh, takk nañu bët yi aveuglement ñëpp àndandoo ñu waaw d'accord ndax ñuy dañuy xeex wopp ci jàkk yee jumaa yee nangam nangam am na sax ku fi osé woon ni fa sax foofu moom euh, mën nañoo bañ a wax <coughs> waaye waaw waaye ñëpp snobé nag joxuñu ko valeur moo tax wax ju guddul fan <coughs> mais ci koor gi alaaj nooy woore ak ni Sénégalais bëggee ndogu nga yeewu daw daw yi dépense ñu ni de dix-huit na la fekk si biir kër wala seize heures nga faa nekk bu timis jotee doo xam ne da jot na xanaa télé yeeg rajo naa fi la amul du fajar gi du am pour yéen nit ñi wax leen jóg leen xëdd hmm. yàllaa ngi ñuy déey de dañoo nanguta dégg rek alaaji yàllaa ngi ñuy wax de man de su ma nekkoon su ma nekkoon ñi jiite réew man maa jëkk tiit parce que li tax may tiit mooy da ngay xam ne musiba bi am tey ci àdduna bi fekk ma fekk seen mbir nekk ci sama loxo. ma jiite ko war naa tiit. war naa tiit kenn mosul gis lu mel nii. kenn kenn kenn kenn mosul gis lu mel nii. Hmm, hmm? xam na ko. <laughs> noonu mbas mi yàlla nañu si gox yi nga xam ne dañu leen faa tamit seen i tur hmm. fa dëkk ñu confiné leen fat leen buñ liggéeyati ah baax <laughs> moom mi ngi ci boppam ba liggéey buñ liggéeyi alaaji ñi dëkk ci gox yi waa mais defal ndànk prévention la ñu xamantulaay mm-hmm. communautaire yi yow doo xam ku la romb doo xam euh, alaaji Eh, gars yi ñu ngi nuyoo sax ay conc nga dugg sa oto ak sa verre ñëw dugg fii liggéey soo paree tojaat say verre dem ñibbi confiné sa bopp sa kër ci biir boo boo confi alaaji Sénégal mënoo feex mënoo xees nit ñi ñoo ku ñëw mën la bu ñu agsi alaaji defal ndànk alaaji am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañuy dugg sa yaay bu ñëwee sa kër day dugg te moom këram fee mu nekk na leen na leen na leen ca booru stade ba xamoon nu mu fa nekkee waaw dëgg la de dégg nga sa sécurité bu ñëwee day dugg bu liggéey see te xamoo ca këram nu mu fa nekkee. Ah, waaw benn amee d'enfance ñaar yoo xam ne chaque jour yeneen toog bu dikkee day duggu te xamoo këram nu mu fa nekke waaw ah, loolu dëgg la moom. dëgg loolu dëgg moom kay confinement day man soo jóob tey man bu ma demoon këram léegi fii ci Ndakaaru gii fëgg. waaw waaw bu jabaram ni ñuul métt xool ci pax bu ndaw boobu ci bunt bi. gis séeri kokoo taxaw nii sama seexu jëkkër bi bëreet lay def ubbi lalal ma tapis rouge. termoflash ak yëpp duñ ma ko dóor même bu fa amee du ma ko dóor. wallaahi confiance plein. wallaay wax dëgg yaa nga gàddu mbas may dox ak moom ca dëkk <laughs> léegi yow mi nga xam ne danger potentiel nga nga ñëw fekk su ñun ñi tamit nekkaat ay danger potentiel léegi nan ñu boole confiné ñun ñëpp léegi léegi boo ñëwee <laughs> boo boo ñëwee jox la nga naan ah. bébé jigéen la nga nga ñamal bébé jël kaas ba mosal ka ci déedéet ban mosal nga yëkkati waaw waaw waaw waaw waaw <laughs> teg ne waaye dundal waaye am da rek bàyyi ñeŋ ñeŋ te ñu bàyyi leen dafa am lu ma gis démb mun soo jóom ne car alo Euh, Absa waaw waxal sa yaay soppeem benn fi ne bële alaaji ne waa kër ga wuy yaay ameta ngi fii kër gun si ñëpp ñoo seetaan xaritam alaaji xarit ba nga ànd la yor mbas ma daf na la ko te <laughs> alaaji rii ba nag balaa ngaa dugg sa oto imam ba ñëw. waaw délégué ba ñëw. c'est que man alaaji ah man sori tey def nga lu ñu ne. wallaahi. Ahmed mii nga ñëw indil nekk Ahmed kam àndal mbas ma la <laughs> ah, nii nga def noonu la de daal ki nga àndal lu mu tudd kii daaw de sama xarit la ah waaw waaw ndeysaan. ah nii nga def nii la bul dox yow kese adduna wóor kii daal xaw ma sax amee d'avance la xaw ma sa seex del ànd ak moom ma ne leen fu ma jëm moom daa nga ak mbas. yoo de yoo de fees del ak mbas. yoo de di nga ko def wóoru ci saalu Youssou Ndour ba pare naan toog leen seen kër. <laughs> te moom ma nga saalu Youssou Ndour di tëgg. yow Pape dañoo ñëw saal di def vidéo. waaw suba bi ñoo def yu bari. waaw toog leen seen kër toog leen seen kër. nekk saalu jàmbur. wala <laughs> Cheikh gis sama photo bi ci kawar ba. <laughs> bibliothèque bi Cheikh Fall ci groupe WhatsApp bi ne mais Pape yow nekkoo sa <laughs> na dëgg de toog leen seen kër. kooku ne ko mu ko mu ne photo présumé na sa ginnaaw saal boobu kay ñun xàmmee nañ ko Pape toogal sa kër booy woote di woote toog seen kër. dëgg yàlla toog leen seen kër. mbay jee tamit loolu tamit weesul yem leen nii. Ah. nekk saal Youssou Ndour naan ñi resté chez vous. Youssou Ndour naan resté sa kër ci ginnaaw. ñu bàyyi leen tamit lu ma gis démb. Ah. njëndu masque mi aajawul natt. di natt ndax xam jot na la wala jotu la. non kenn mës a gis. jënd masque di ko natt àllaaji tamit teguñu ko fenn. léegi boo <laughs> bi la jot. Sénégal Sénégal li fi am. ba pare alaaj takk masque ba pare di waxtaan tekki masque bi jàkkaarloo ki ngay wax ak moom ba pare takkaat sa masque léegi loolu takk masque yow jéemata wax ne Sénégal yëpp <laughs> Sénégal yëpp. mais jëndu masque lu jaar natt ba xam laa jotul ah? muy dugg ci supermarché di di jënd dara jël dàll sol ko mu manqué ko mu teg ko sànni ko ci mu nekk dinañ ko arrangé waat. non non man ko loolu lii du àdduna. Ah, c'est-à-dire que. jëndu masque daal jarul natt moom wax dëgg yàlla. Ah, waaw léegi daal takk masque bi tekki ko waxal laaj ba pare takk masque bi amul sens. Hmm. man daal defal leen ma intervention ngeen ñaanal ma ma toog sama kër. ñu toog suñu kër campement waaw. ñu toog suñu kër ma toog sama kër. ñu toog suñu kër jàpp sama morso njàmbur toog te budul dara. budul dara nag alaaj hmm. ah dama di kilifa te réew mi dañ soxla émission yi naa koy defee kër ga toog ca kër gë bu huit heures yi ngeen ngeen pourtant bi ko def à distance ah. wax leen nag Bougane Gueye Dany nii ma toog sama kër yow jëndal benn téléphone bu à dix teg ko foofu rek nekkul bu ñu xëyee ko nag def appel appel conférence xoolal xoolal nit ñi di ma yónnee message naan ma da ngaa bëgg lu yomb da ngaa bëgg a toog walaay du loolu du loolu hmm. na nañ ko yokk hmm. nuñ ko mën a yokkee nañ ko nañ ko xeeb hmm, baax tës à distance Pauline. coro siis Pauline liggéeyal nu loolu tës à distance. Alaaji Mar Fay tey la anniversaire am madame siis coro ñu ngi lay nuyu wér dégg nga mm-hmm. nee na nee na nee na soxna la ñu la ñu àndal. Mm-hmm. ñu ne ko ñun soxna la ñuy gis. Mm-hmm. yow kat yaa nga yéen. ñun kat soxna la ñuy gis nag. soxna fay mu alaaji maar fay moomu la ñuy gis. waaw soxna day ak Mansour sama frère boobu. dégg nga ah bokkul ak Mansour ma ne nag. Euh, ah. Euh, sama sama sama jigéen bi Fatou Faye ndeysaan madame Diop doomu alaaji Mar Faye. Ah, macha naar naar naar madame bu baax moom naar tamit nee na la anniversaire. naar. Hmm? dégg Colombo. waaw koy naar Diop Colombo waaw. Mm. Euh, alaaji. te su bi nag commencement ba laa ne dafa doy waar. Uh-huh. déggoo ma de. dégg naa baax a baax. xale bi. Mhm. ca Gàmbi la dee. Gàmbi sax fu mu waaye Sénégalais la. waaye Sénégalais la. waaw. fa la benn nan la def ba jamonoy tëjum frontière jii mu ne fa saax dugg déglu rek boobu bu njëkk ba de. Mhm. nee nañ fala la ay mbokkam nag nee nañu ñi leen ko tàggee dañ ne booy bi dafa lab. daal pour jéem a jéggi ñëw. dafa lab déglu rek. waaye ñoom nag dañoo jàpp ne labul dañ koo rey. ndax fu ñu ko teg. keroog ba ñu seen mbokk yi ca yem ca néew ba. waaw bañ ne dañ koy denc. Mhm. ñooñu dañoo bëggoon patam patamee ñu ne leen ñu ne noo muur nañ ko dootuñ ko muri dugg na fi gën a ñu ne déedéet. Mhm. Mhm. ñun ñuy taxaw ay mbokkam lañ. xanaa dinañ muri sa xool ba xam kii moom la wala du moom. waaw quand même. ñu ne dee fa la jàppante bi njëkk a amee doo ko muri. Eh, loolu moo mënta nekk. ba ñu bërti bërtee alaaji ba muri booy bi. waaw. Mhm. ñu gis ay ay ay ay ay sëkkale ki cicatrice dóor yaram bi tëccu naaj. deret ah, ah kon labul. te suuf suñ ko gis mu takk it joxewul suufu géej gi. Ah. Hmm. waaw ñu ne nag kii julit la. Mhm. duñ ko suule nii. danañu ko toppatoo sangu ko defar ko suul ko foofu it indi coow. ñu ne dee rob rek defar nañ ko ba pare. Mhm. Mhm. foofu indiwaat coow. waaw ni daal. ah. naa daal laaj wu njëkk wi nag. Mhm. mooy jamonoy tëjub frontière yi gone gi ñu mu def ba dugg Gambie. te loolu la. ah. nag. waaw mbokki ndeyam yi nag ñoo wax xam naa ni daal papa Dieye daal lañ jokkool ci mbuur ay xam naa ni ah, la dëkk ah dossier xaw côté yooyu quoi waaw dossier bi alaaj ah, <laughs> dossier bi dossier bi dafa xaw a diis de mhm. liñ naan c'est du lourd mhm. ah ah c'est du de te ñoo déglu mbokk yi waaw waaw waaw bisimilaay man man awa laa tudd awa jàll laa tudd. awa loo bokk ak kii gaañu. ñoo bokk benn ndey. lu xaw nan nga yëgee mbir mi. man damaa toog fii daal ba añ ba pare. noonu rek après chef de quartier bi oo ma. dama ndax da ngaa am rakk bu tudd ma ne ko waa. mu ne ma dañoo ne ma dafa lab géeju gaan. Mhm. ñun ñu waaw ñun loolu lañ ci am. Mhm. ñu dafa lab léegi léegi ñu génnee ko mu gaañu. Mhm. léegi ñu ba ci suba ga ñu toog am keneen ku ñëw. ne depuis le huit depuis le six ba léegi maa ngi wër seen kër. Mhm. ma ne ko ah munuma waaw ndax dañ dañ maa oowoon wax ma affaire bu am gan boobu ba léegi maa ngi wër seen kër nag depuis le six ba léegi ñu ngi na kii dafa laaj foofu noonu léegi ñun tamit ñu laaj ndax fan la nekkoon foofu ñu ne benn kër xaritam ndax moom mus na fee ñëw moom te am na xaritam bu ko wax ne kaañ dem gàmbi ndax gàmbi liggéey mhm. léegi nag sama yaay na ko man gàmbi daal jubbuwuma bul dem mhm. mu ne daal yow bàyyi rek ma dem comme man ma fexe dem ma dem uti liggéey maire ne ko bul dem foofu après mu dem Dakar ñun yëguñu kañ la dem Gàmbi mhm. ñun oote bi daal moo ñu woon ne dem na Gàmbi mhm. moo tax ba ñu waxee dañu foogoon sax pour xëy na daa am ku ko sàcc jël kalpe mag yooyu moo tax kiyam dem foofu noonu kàddante mais ñun après ba ñu ah, envoyé ñu doog a xam ne moom la Mm-hmm. léegi nag paa bi bañ demee chef de quartier bi ma ne ko léegi dañ ñu jox numéro ki la woo kooku ñu jox kooku jox ñu jox jox ñu numéro ki nekk Gàmbi après ma woo kooku ma laaj ko nan la affaire bi demee mu ne ma moom da dafa doon kii nii après mu daam mu ne waaw ñoom daal dañoo joxe ay version yu bëri ma liyaat laajte waat mu ne ma moom dafa am lu mu fàtte woon si gaal bi da napp nañ ba waññeek comme dem ba sa kër ga léegi am lu mu fàtte si gaal bi mu dem di ko jël boobu la la ñu ñu xool ko ñaari fan ñu koy wër gisuñu ko troisième jour bi la teer ñu toog après ñu ñu laajtewaat daal affaire bi nan la demee. buum la buum bi tëree téye gaal gi moom lañ liyoon après ba muy jëli buum bi ba buum bi rëccee xaw mu dem di ko jëli boobu la la. am kon version yi bëri na. léegi ñun am na kenn ku ñu oo foofu kooku nag moom moo dem kiyal ñu kiyal ñu foofu ñu ne ko léegi suñu dëkkandoo moo doomam la. mu oo ko ne ko léegi affaire bi def ko comme sa yëf. kooku na mel ni comme sa rakk la. demal nga nga kiyal leen foofu. kooku dem mais wa kii ci toog foofu noonu kooku du nangu dem nañ ba ci ambassade bi ci buntu ba lañ koy taxawloo moo sama sama xaritu rakk bi ci buntu ba la taxaw léegi bañu ñu xaarloo a dugg comme ay mbokkam a dugg ñooñu dugg léegi nag ñooñu bañ duggoo ñu fekk ñu laxas ko ba pare ñooñu ñooñu daan ne nag doo leen ko yéen amu leen droit utal ko càngaay ñun ñoo ko war a utal càngaay ñooñu daal bindi affaire li ngeen ñu nëbb daal li ngeen ñu ko wax kooku nee na mu gis càngaay bi takk deret ko léena mu dindi mu dindi càngaay li u fekk yaram bi yëpp takk suuf wala leen yéen kii sangu ko ak yaramam bi ni mu takkee suuf ni ngeen ne nii ngeen ko nar dencee te kii doo war a sang ñu ne ko yow boo dindee càngaay càngaay li day yàqu mu ne waaw mën na dem jëndi beneen kooku génne xaasam dem jëndi beneen te la ñu photo kanam gi mu ay ko mais kanam gi boo gisee rek xam ne kii la ba dañ koo dóor ñun loolu lañ ci am léegi nag euh, comme yéen da ngeen di suuf seen maanaam li ñu leen wax demeewul noonu ci faatoom léegi yéen lan ngeen bëgg. ñun bu leer ñu xam lan la. te ba pare famille famille bi nekk foofu bi ñu wax ne ñooñu la nekkaloon ba tey ñun famille boobu ñoom ñun daal paa bi rek la dégg paa boobu noonu daal la moom kese la ñuy dégg dégguñu benn famille famille ki ko fa yóbbu daal gisuñu dégguñu benn famille bu taxaw ne suñ kër la ñëwoon ndax jëm ngeen a jege ambassade bi ambassade Sénégal bu foofu ma lay wax ba mu demee ba foofu kook mooy moo ñu lu yoon bañ ne ah ñun boobu sax ñaawuñu woon jot leneen ñun daal dañoo jàpp ne dafa laq boobu ñaawuñu jot loolu léegi après boobu lañ jox ko kooku ne ah affaire bi métti na xanaa ngeen bës seen xol ñu ne ko ah waaw comme comme looloo fi sos kay ñu muñ rek waaye métti na métti na foo xam ne yoo xamoo woon ne sax suuf la ne ñun Dakar lañ tàggoon fa la nekkoon ba mu demee foofu sax yàggut ndax man temps yi rek ba may jógee Dakar man di ñibbi fii laa ko wax ne kaa ñu dem mënu dinaa ñëw demal jiitu léegi man leen ak frontière yi ñu tëj moom nan la def ba dugg foofu man moo ma jaaxal ñu mun na fa dugg te fekk ci ndox mi la jaaree mais moom daa kooku fa yóbbu xaritam moo fa yóbbu xam mais ñun ba tey ñun affaire dafa dafa lëndëm si ñun dara leerul ah, famille boobu buñ taxawoon wax rek ñun ñu xam waaw léegi nag euh, lu tax ngeen ñëw tës lu tax ñu ñëw tës dañoo am luñ métti dañoo am luñ naqari trop luñ naqari trop lañ am ndax yaay jaa ngi nii gis nga démb damaa dem sama xol bee jeex démb ba looloo tax te xam naa ba mu ma xawaatee jotoo jotoo ndax maire bi daa toog ba mu yàgg rek yuux maire bi dafa toog ba mu yàgg rek di yuux dafa métti trop xale bu tuuti nga xam ne ñooñu di moom ñaataat la woon moom am na am na vingt vingt kii ade am na kii ñaataat la am dix-sept juillet dix-huit juillet dix-sept dix-sept juillet 1998 ci la judd hmm. ñaar fukk ak ñaar xale xale waaw xale bu ndaw la. xale la kay ñaar fukki at ak ñaar waaw. xale bu ndaw la tey moom xamul papa. waaw léegi waaw. xamul sax papa. Mhm. waaw léegi léegi kon xam naa euh, comme lii ak li sa rakk ji wax xam naa ñu ñu bàyyi ñoom Ahmed Aidara rek ñu commenté loolu après ñu xool ba xam. waaw waaw ndax ndax ñun pa pa boobu noonu kii ngeen après ba demee ba lii ba pare. mu naan waaw léegi. après ambassade bi jox naa ko seen numéro. léegi dina leen woo. après yi da ngeen da ngeen koy jooytu rek ngeen ne ko xale moo nekkoon seen seen affaire yooyu daal bi ñu leen jàppale ñun xaalis ñun faalawul xaalis mu moom moom it mu daal ñun am nañ fii nii kees kees boo xam ne ni pour pour affaire nappkat yi la bu bu amee zaar yi mel ñu dindi ci jox leen ñun soxlawuñ xaalis ci li ñu ñàkk moo ñu ëppal xaalis fuuf yoon waaw ñun soxlawuñ affaire xaalis hmm. ñun daal nañ xam ki ko fa yóbbu mu taxaw feeñ ne man nii la àndaloon lii lii la affaire bi demee ñun ñu xam mais kooku ba léegi seen waa kër taxawoon te nee nañ kër la nekkoon wax nañ foofu paa bi nee na ci foofu dem nañ bu foofu na kër boobu génn tey moo tax aussi mun leen leen dem waaw ñun kenn kenn mënut a dem sax a xam ni maire bi sax gëmu ko woon mais man bañ ma man xam ne kii moom la waaw baax na waa kay jërëjëf baax na jërëjëf jërëjëf ok ci yàlla suñu borom hmm. la ilaha illallah Mamadou Sy ñu ngi lay nuyu la jeune waaw mais lii tamit mooy lan baax na ah c'est que xëy di dem rek te xamoo say mbokk fu xam say mbokk xamuñu fu ñu dem. foo dem looloo gën a dangereux. alaaji ñii xëy lu ne mën na la caa fekk ay damaa bëgg a bégal sama yaay wala damaa bëgg a teraangal sama baay. sama papa waaw mhm. moo tax may dem nii tamit alaaji tamit. loolu tamit say mbokk foofu yaa ngi Dakar yaa ngi Gambie. ba ba ba la foofu ci condition yii. xam kii kii na ma yàlla jéggal bëgguñoo bàkkaar mi ku dégg xam ne nuruwul lab de. Ah, nuruwul lab lii niru lépp waaye ñoom itam xam ngeen da ngeen war a wax wax na ko ne dañ tegoon booy bi dañ tegoon mi ngi Dakar ndeke teer dina gàm ñoom bu du woon ak faatu bi duñu xam ne ma nga gàm bi loolu laa xam ne nit yi tamit naka nga mën a tàggoo say mbokk dem fenn mais loolu alaaj du ci mbokk yi du ci mbokk yi ci muskalaf koo xam ne dem na ba say ñaar fukki at teg waaw waaw nekkatoo xale waaw jamono jooju it nag jamono jamonoy dem la de ah. âge man ku fi toll ñaare jàng mbaa nga tënku rek war a toog ah déet mais alaaji nga ah. ak loo dem dem dem dem yëglu. say mbokk xam ne yaa ngi fii. dem dem dem yëglu waaw. mais dem aventure rek comme ça ñaata ñoo dem te ñëwuñu alaaji ñaata de seen mbokk yi di ñëw fii di wër. dañoo demoon ñëmbatuñu. boo nitee. boo nitee de bala nga dem da ngay tàggoo. ndeysaan. yi dañoo ñëw. kan la. waaw kan la. Aba ak ak. Pape waaw. oui démb seen naa ko. ah seen géej non non non fii nii. <laughs> Mansour romb nga ko. sàmmee woo léegi mani. mani. waaw nee ko. Uh-huh. suñu plateforme ba ñu def fële ca géejawaay googu. Uh-huh. j'ai masque boobu. moom it na góorgóorlu jéem indi masque dégg <laughs> ah yaa ngi may dégg kon ci suuf. waaw léegi ma ni. waaw yow sax liñ lay sas du bari. wax naa ko Aminata Ndiaye laa lingeer démb. Ah, mooy trésorière bi. incha allah yéen yéen ay booy ngeen te te du yor ay stage waaw wala jël nañ la jël nañ la nii. <laughs> embauché nañ la. déedéet déedéet. waaw non non non. <laughs> loo bëgg ñu ko fay ko. non dañ ko war <laughs> mu defar ci masque. ah déedéet kii géej waaye dëkk di. réew mi neex na. léegi ma ne a sekk mi nekk fii nii Seyel bi nee naa ko da ngay defar diis. ah oui ah, waaw. day liggéey fi day wut diis masque jox ma ma dem jox aw nga xam ne démb yaa ko may casque. ba dara. daan nay de ah dana defaree casque nag waaw waaw. dana defaree. am na moomu foog nga nga ni. ah yërëmante yaa tuuti de. ah ci lan. mos na waxuma mos de mani. <laughs> Ah, kii li mu bëgg mooy mos bu duun bu defar masque yu duun. dama lay déglu ma fii nga naan ma ay mos na kii go go kii gone la léegi fanweeram mat léegi dafa war a takk jabar yooyu dama ne. Mhm. bu dee day stage ngeen dakkal stage bi te embauché ko. géej waay dëkk. Mhm. déggoo ma de. Mhm. jël nañ ko. jël nañ ko. waaw. waxuñu stage Aba. <laughs> waxuma CDD. yow sëñ boo ci yàggee da ngay dee. booy dee ngeen noppi booy noppi leen rek. su bàyyi mu wax. déglu leen ay doom déglu ngeen fi kale man maa wax bañ yokkal leen déglu leen. <laughs> ok dama ah, kon la man mënoo leen ko noppi leen rek bàyyi ko mu wax. léegi li ma leen di laaj mooy stage ngay def yow booy wala yow. CDD la contrat durée déterminée daa am fu mu yem après ñu dàq la wa ilaa CDI la indéterminé dañ laa jël teg la fii ngay liggéey embauchement waxal i i booy booy booy xanaa dafa bañ a booy ah, booy. booy. baa ñëwoon fii commencé naan maag bugaan ñooy toog nii pourtant chaque jour ñooy nekk nii. waaye yow booy démb gis nga yow booy démb booy démb gis naa gis nga ma yow xam nga ma war ma la nuyu woo ma yow booy. ah, ah naa ne pourtant nee ma la. booy bii. bi quoi. mais daan ma yaa ah, booy ba pare ba pare yow booy. waaw yow booy. <laughs> Euh, yow yow da nga <laughs> commencé laal ay costume yoo xam ne man solo ma waaw kay. non defal ndànk alaay yow nan ngeen nekkee no non daa no daa taamu sañ a rek. déedéet déedéet déedéet trafic. daa taamu sañ non daa taamu sañ si rek. déedéet déedéet alaay defal ndànk trafic ak costume kaw mu te. Aba. Aba Aba bu leen soxla bu leen bu leen soxla booy bi daa taamu sañ yenn saa nga gis chômeur yoo xam ni dañuy génn ñaan café ok c'est bon baax na léegi léegi booy. alaay booy ni patron d'entreprise la. waaw ma sa statut d'accord kon yow léegi yow li ma lay sas du bari. incha allah. Eh, Ibra Fall mii mondial tailleur cinquante masque dañ ma ko jox. mooy jël non eh, yow yow yow rabboo lu tolloog cinq cent wala mille jox ma may rabbal cinquante. mondial tailleur waaw waaw mondial fay. ku ñu mënul dimbali ah, ci mbas mi te yàlla mondial tey waaw ah ki nekk ki nekk am penaa nu mu tudd mbay jaxate a baax mbay dina ci jàpp inshallah mbay de maa gën a yeyoon dimbal ñii laaj ñu dimbal ah. alaaji man yow yow foofu na ñaata nga joxe ma rek joxe bu dara yow géej yooyu suñu masque yi fee suñu masque géej yooyu dañuy dañoo soxla un million de di joxe kaay kaay kaay foofu kaay eh kaay eh, eh. foofu rajo ngay wax de. yaa ni di nga joxe ñaar fukki junni. alxara cent mille francs yaa ko wax. booy booy kii eh, tra eh, yéen wax leen te de ma régler samay contact kii ana foo leen ne. voilà fu ñu toll nag sëñ Ameth ñu ngi sur la route nationale bi Euh, beaucoup de lenteur à signaler au niveau du foofu la xat na lool pour ñi nga xam ne ñoo ko daal di choisir rawatina nag wata yi nga xam ne ñooy génne di côté de Labal Fall foofu la nag bu ati di gën ak ñoom ñëpp ñooy daje ci foofu la ba tax na foofu nag par complication mën ngeen a wër rond-point daal di euh, continuer seen progression wutile rek rond-point bu Cambérène foofu nag quelques lenteurs à signaler Voilà, merci beaucoup. Et là, si nous avons sur la route de Yara, complet, des complications sont à noter pour des véhicules au rond-point, c'est beaucoup progressé, marché au passant, mais beaucoup dépassé aussi. Hier, nous aussi, trajet Boblé, nous avons foofu à hauteur de Cafetaria tax na boobu yéexal dem bi dëkk bi tuuti ak quelques déviations su ko defee aussi su ngeen ko dépassé yaa ngi jëm boulangerie Kappa te lenteur ñoo lay xaar ci boobu la trajet El Hadj kon waaw merci waay jaajëfatee El Hadj hmm. <laughs> <laughs> xaaral xaaral jëm dem publicité dellu si ma il faut que ma régler dëkk bi quoi man aussi damaa sonn. xoolal maire bii rek. yow man boo ma sasee man ay masque fu ma jëm. maire maire commune. ok il faut que le maire. département de Dakar. de. waaw. communes yi gën a ngand. ñaari communes yi ëpp budget ëpp xaalis seen maire di ma yónnee message naan ma sas naa la cinq mille masques. alaaji alaaji ceeb ceeb bii rek alaaji ceeb bii. Ah, da ngaa juum de xanaa. alaaji. Hmm? li ma nit laaj ci ceeb. laaj ko samay nit li ma la nit laaj ci masque. joxee du dund. ah waaw man de man xanaa xanaa xaw man ceeb bi alaaji. Mhm. man damaa waroon takku sax dem dem dem poor wuti. man est-ce que du ma wuti ceeb. ceeb bi da lay dande. na nga ah. nekk ci saaku ceeb yu xonq yooyu da lay dande. dafa may mbëkk. wallaahi kon ñëwal ma boobu kaay. ñun yéen da ngeen war a wax Bougane ne ko Ahmed bu ñëwatee ñun du ñëw. <laughs> waaw vous devez lui forcer. ah alaaj doom bàyyi ma daane. mbas maa ngi ngeen ko war a forcer ngeen ko war a forcer wàññi loxoom ba déglu ma rek déglu ma rek alaaj man man sa fetu ba euh, Fatmata Diop na euh, Fofana euh, non Younoussa bi kenn lay jóge mooy dangereux <laughs> léegi ñun yéen da ngeen war a kaas. takk ay morsoy xonq ngeen wax ne ñii buñ tegatee seen tànk ci rajo bi ñun du ñëw. ñëw leen garaaw. déedéet on prend le risque déedéet déedéet. ñëw leen on ne devait pas prendre le risque alors <laughs> déedéet. léegi lii professeur war na cee wax ak Abdoulaye Diouf Sarr. maanaam noo war a continuer. maanaam teg ñu suñuy kër di ñu jël téléphone. waa léegi jël leen ñu téléphone léegi comme que mënuñoo ñàkk ci. non garaawul man ñëw leen. lii dee neexatul. laaj balaa ñu la balaa ñu laa confiné. yow yow yow alaa ñi nga tudd daa doy waar de ñi nga tudd ñi nga tudd noonu mën a tuddee. ci ci ci affaire corona bi. ñi nga foog ni ñoom ñoo la wax nga toog. yéen ñi. alaa ceeb bi kii bi nu mu tuddati corona bi di ci laxasut lépp dafa dafa. laaj day sax si ceeb. ci ceeb beeg ba pare. sama waa ji bilaay li nga wax dëgg la. ngudda mm-hmm. saw mii. Mm-hmm. nee na jamonoy campagne bi alaaji. Mm-hmm. yu gënoon a seer ay masque la politiciens yi daan joxe. t-shirt yi danañ joxe t-shirt. de valeur ak ay lacoste joxe ay casque. casque baxana tissu joxe joxe ay tissu joxe carburant jo joxe joxe. ak campagne bi joxe per diem. tey masque sax mënaluñ ko seen seen seen. ay masque ngeen jox gars yi rek mu tëleen tëcc. tëleen tëcc. mën a force leen di ngeen ko takk force. Ah, ah. Euh, mais jamonoy campagne yenn yenn communes yi ñaata mm-hmm. ñaata millions lañ fay dépensé. tey jii communes yu bëri yooyu gisatoo sax ñooñu. ña daan nekk ci communes yi. parce que élection amul. Ah, askan wi am seen fulla. dañuy bàyyi dem toog boo leen déggee élection la. Hmm. ñu ñëw woo yenn ci seen i délégué de quartier yenn ci seen i imam déggoo ma de. Hmm. ñëw toog séddaleen ceeb bii doo ci gis ay maire yu baree bari doo leen ci gis. ndax leer na leen ne alaaji mhm. bu ñu leen joxoon un milliard de tonnes tamit du mate seeni i commune Sénégal ni kër yi bindoo la mhm. déggoo ma de mhm. da gis benn kër Mansour Diop nekk fa ak jabaram Ahmed Aïdara ne fa ak jabaram ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak ne fa ak jabaram benn kër ngay gis lu tolloog ñett ci ay borom kër yoo xam ni bokkul njëltam teg ca njëlt ñoo bokk déggoo ma de ñoo bokk benn ëtt duñu ay locataire de famille te bokkuñ jël. mais exemple suñu tësu démb bi rek foofu boo fa yóbbu woon benn kit. waa léegi alaay coow mooy judduwaat suñu ne fii am mm-hmm. ménage. Mm-hmm. njóobeen yaa ne fii wala njaayeen yi. Mm-hmm. dégg nga. léegi ñu bindi leen. léegi nag bu ko defee nga yóbbu fa ñaar fukki kilo ak juróom genn wàlla saako. léegi affaire bi nan lay demee. day waar père de famille bu ca ñoom ñett dañ leen ko war a séddale. waaw bu dee fukki kilo ak juróom nga fa yóbbu ku ne juróomi kilo. <laughs> kooku mën naa puus weer. ñetti fan. mais déedéet kii bu fekkee bu fekkee. te boo bu fekkee ku jaboot nag moom. dara man li may déranger mooy le fait ñëpp duñu am man foofu moom may déranger parce que dina am ñoo xam ne dañ leen ko jox te am ñoo xam ne ñoo ko gën a yeeyoo duñ ko am ñeneen am ko. ñoo xam ne au moins am nañ benn ci seen famille koo xam ne mën na leen jëndal kit boobu am ñoo xam ne amuñu ñu ko yaakaar te duñu am. ma ni nañ leen ñëwaat ci mesure barrières yi. muy dëgg hmm? sensibilisation bi ci corona gi nañ ko yokk en naa ceeb bi di yegg si ca mairie ya. Hmm. ñu lijjanti ko dégg hmm. Ah, léegi nag déglu leen professeur Seydi professeur Seydi alaaji. léegi xoolal ay sous-titres rek lay nekk. à droite à gauche goos gauche. foofu rek lañ koy taf léegi ci journaux yi. sous-titre sous-titre yu ndaw wala ñu ñamal ko ay off. dégg nga de. gis naa professeur Seydi léegi hmm? gis naa. dégg nga te professeur Seydi nag instant bi ñu toll nii nag. la soxla moom rek a war a wax la soxla woon dooleel waxam war naa yokk. moom rek a war a wax communication war yokk sensibilisation bi war naa taxar naa se. gis situation bi am ni da ko waxoon temps yële ci ginnaaw donc vidéo yooyu leen jël réactualiser ko di ko tegaat. parce que dafa waxoon lii nii am. di ko moor yii nii. da ko waxoon avant muy am. parce que am na fu ñuy àgg ci maladie bi duñ mën a ci euh, tëye mbir mi. Hmm. c'est vrai que tamit dafa amul jot boobu parce que man tamit essayé naa ko pour ñu jokkoo ak moom ci tës bi mais comme cas yi dañoo xaw a bari jotam bariwul aussi. ah baax na en tout cas daal ana bagaas yi réer. Hmm. en tës bi tey day. bés bi tamit tey doy na waar trop. Mm, tey mm, yi moom ah yii. c'est que tis bi tamit est ce tamit yore tiitu corona gi ba pare tamit yenn xalaat yi tegwaat suñu kaw ah. dégg nga Awa Ndiaye magu <laughs> maman Ngiraar. mu ni. nee na bëgg lu yomb rek xëy laa wax. mais ba problème bi ñu am ci bu ñu waxee bu ñu waxee couvre-feu day wàcc dix huit heures. bu dix huit heures ba sept heures. léegi nit ñi xanaa duñu ndogu nit ñi xanaa duñu xëdd euh, takk nañu bët yi aveuglément ñëpp àndandoo ni waaw d'accord ndax ñuy dañuy xeex wopp ci jàkk yeeg jumaa yeeg nangam nangam am na sax ku fi osé woon ni fa sax foofu moom. Euh, mën nañoo bañ <coughs> waaye waaw waaye ñëpp snobé nag joxuñu ko valeur moo tax wax ju guddul fan <coughs> mais ci koor gi alaaj nooy woore ak ni Sénégalais bëggee ndogu nga yeewu daw dawi dépense ñu ni de dix-huit na la fekk si biir kër wala seize heures nga war faa nekk bu timis jotee doo xam ne da jot na xanaa tele yeeg rajo yi naa fi la amul noddu fajar gi du am pour yéen nit ñi wax leen jóg leen xëdd yàllaa ngi ñuy déey de dañoo nangutu dégg El Hadj yàllaa ngi ñuy wax de. man de su ma nekkoon su ma nekkoon ñu jiita réew man maa jëkk tiit parce que li tax may tiit mooy. da ngay xam ne musiba bi am tey ci àdduna bi fekk ma fekk askanu askanu seen mbir nekk ci sama loxo. ma jiite ko war naa tiit. kenn mosul gis. war naa tiit kenn mosul gis lu mel nii. kenn kenn kenn kenn mosul gis lu mel nii. Hmm, tiit lool. Hmm? yàlla xam na ko moom bas ah. gox yi nga xam ne dañu leen faa tudd tamit seeni tur leer hmm. ña dëkk ñu confiné leen fatt leen bu ñu liggéeyati ah waa <laughs> moom mi ci boppam ba tey liggéeyi alaaji ñi dëkk ci gox yi waa mais dafa am prévention la ñu communautaire yi yow doo xam ku la romb doo xam euh, alaaji euh, gars yi ñu ngi nuyoo sax ay conc nga dugg sa oto ak sa verre ñëw dugg fii liggéey soo paree tajaat say verre dem ñibbi confiné sa bopp sa kër ci biir boo boo conf alaaji Sénégal mënoo feex mënoo xees nit ñi ñoo ñëw ku ñëw mën la bu ñu agsi defal ndànk alaaji am na ñoo xam ne ñëwee dañuy dugg sa yaay bu ñu ñëwee sa kër day dugg te moom këram fee mu nekk na leen na leen na leen ca booru stade ba xamoo nu mu fa nekke waaw dëgg la de. dégg nga. sa sécurité bu ñëwee day dugg bu liggéey see te xamoo ca këram nu mu fa nekkee. Ah, waaw benn amee d'enfance ñaar yoo xam ni chaque jour yeneen toog bu dikkee day duggu te xamoo këram nu mu fa nekkee. waaw ah, loolu dëgg la moom. dëgg loolu dëgg moom kay confinement day man Sori tey man bu ma demoon këram léegi fii ci nakaaru gii fëgg. waaw bu jabaram ni ñuul métti xool ci pax bu ndaw boobu ci bunt bi. gis ne ko kokoo taxaw nii sama seexu njëkkat bi bëreet lay def ubbi lalal ma tapis rouge thermoflash ak yëpp duñ ma ko dóor même bu amee du ma ko dóor wallaahi confiance plein dëgg yaa nga gàddu mbas may dox ak moom ca dëkk léegi <laughs> yow mi nga xam ne danger potentiel nga nga ñëw fekk su ñun ñii tamit nekkaat ay danger potentiel léegi nan ñu boole confiné ñun ñëpp léegi léegi boo ñëwee <laughs> boo boo ñëwee madame jox la nga naan ah. bébé jigéen la nga nga ñëwal bébé jël kaas ba mosal ka man mosal nga yëkkati. waaw waaw waaw waaw waaw. teg ne waaye dundal waaye. am na rek bàyyi. ñeeng ñeeng fan di ba te te ñu bàyyi leen dafa am lu ma gis démb. mun soo jóom ne car allo. Euh, Absa waaw waxal sa yaay soppeem benn fi. dëgg si waaw daba caamu tudd. Ah, ah. moom borom këram Alex. Alex waaw borom kër gi borom këram tubaab la. waaw mi ngi tudd Daba Thiam mi ngi dëkk fii nag euh, Ndakaaru gi la dëkk moom xale. Alex bonjour. voilà Alex bonjour. saa yi bu xëyee daal alaaj daal. macha allah ñun daal lay bëggee. dama ñëw ak suñu xarit bi nekk Norvège Aïssatou. Aïssatou Ba. mooy ki fi ñëwoon. Mhm. waaw ndeysaan Aïssatou ak a baax. ak Sali Sali Kabou moom États-Unis la nekk. ndeysaan ak euh, Aïda Gueye moom Italie la nekk. ndeysaan ndeysaan ndeysaan kati bu nekk itali ko moom ii kati. kati waa kati gay. kati gay a baax. fidèle auditeur. waaw waaw merci Lamine Gueye. Lamine Gueye ngi nii nag Pikine la dëkk acteur de développement. président Lamine Gueye déedéet. kii benn beneen Lamine Gueye la. acteur président Lamine Gueye ñu ngi koy nuyu. président Lamine Gueye nam naa la indi ci masque war naa la woo sax de. voilà Mbacke Mbacke Diop waaw Mbacke Diop nag yaa jël coupe bi yow. Mbacke men waaw Mbacke Diop waaw. en waaye la ma booleel waaw. Mbacke boobu baax la léegi léegi. xaaral lu ñu ne ma nga moom du foofu na de xamal naa la benn affaire alaaji dugg na ni ruba. nee na cent mille lay joxe de. dugg na ni ruba te cent mille yi dina ko joxe. nee na cent mille lay joxe boo xoolee yokk xaalis commencé tina. Eh, xam nga ku dem ba alaaji ku dem ba ca marché ba des fois la yaa tàgg yaa tàgg sa bopp yow yaa dof dof lu yow ñëw ba tës mhm. annonce ne di nga joxe cent mille te ma ngi ca biir groupe whatsapp ba wallaahi groupe whatsapp bi laay dajaleel ay masque ba ba ñoom Birahim Seck daw ah yow léegi ah, Birahim Seck ca la bokk saa ah, boo xëyee di annoncé cent mille eh, bi nekk UBA ak honorable yal na nga am jàmm voilà kan la Omar Sy ancien député Omar Sy si Malick waaw ah, waaw ma nga fa Omar Sy ma fa ak euh, mi ngi Marème Ndiaye mi ngi maram. waaw mi ngi maram rakku rakku rakku Aminata Ndiaye la euh, ñoom ñëpp ah. mi ngi maram journaliste la. waaw bien sûr ñoom ñëpp euh, ñoom ñëpp ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci groupe ba. waaw ak Yoro Mangara. eh Boy Mangara. macha allah ah El Hadj ñu ñu waa Guédiawaye lañ. ah waaw. waaw waaw. ñi waa géejuwaay lañ def ñu nekk nii kat géejuwaay kat il faut nga ñu jóg nag alaaj waaw waaw waaw waaw ba kaaruñu benn meer bu leen ko bàyyi ñu ne ci bopp ba dey mukk ci àddina manit <laughs> sa collecte bu jeexee voilà ak Michel ak Michel Mendy waaw kay bu leen la bu leen la mbaxee tuuti de booy Ablaye Diop si de junkoom voilà docteur Soyo mu Ndiaye waaw kay ñun ñii de waxuñu bu leen la mbaxee pétrole lakk leen de Moussa Diop journaliste tamit la Soleil Aminata Ndiaye bu leen la mbaxee pétrole lakk leen de voilà. yéen alaaji. seen alaaji yéen seen cas seen cas communautaire bi. fan fan la fan la jógee. ci kan ci jaaykatu beñeem jaaykatu tànganaam. tur de famille am clinique lan. Euh, ci loo kii mooy suñu trésorière alaaji. mooy dajale masque ak xaalis bi. Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye jaata Ndiaye. waaw waaw mani mani. Mamadou Fofana nee na. dana joxe cent mille francs ah très bien macha waaye man góobu ko léegi muy génn fële di ma dee naan ma yaa may cotiseel ma ko. yaa ñëw ci rajo bi wax ko. danaa la siiwal ni dugub di nga siiw ni Fatiha. <laughs> barki yonent bi. yaay lay lillah mani mani laay xamoo foofu la léegi. Ah, non non bind ko bindal bind ko. Ah. bind ko. <laughs> dana joxe de. Ah, ah. laa ilaaha illallaah buñ ko may dara dara dara dara dara léegi. dinaa ko woo téléphone sax téléphone laa bayoo. très bien hmm. très bien. Hmm. ne ko kontaan naa ci <laughs> yow miy dey yow nga dóor de kii géej way la dëkk. yow wallaay wallaay eh. kan kii eh. nga ne ndax kii géej way dëkk. ah am njaayeen de. Ah, yow kii dëkk géejawaay cëw. dégg dégg naa dama koy yónnee message ni ko merci ci contribution bi. xoolal xeetu xool xoolal xeetu dóor jub boobu rek. mbay jéey yëmbal. waaw waaw. léegi. ma ni. Euh, Alpha mooy coordonnateur u PASTEF département géejawaay. incha allahu rabbi moom it. Euh, dana ñëw. incha gaa yëpp dinañ ñëw ñëpp dinañ leen woo. incha parce que nag aminta nag il foog ñun tamit ñu jóg de. wallaay li may li may wax chaque jour rek ndimbal na ci fekk loxol waaw kay li la jàppale na la a def <laughs> trop trop trop ci ci ci ni ngeen waaw waaw géejawaay soxla du la nen. soxla affaire yi du du du wax yu na action na jeex na trop ñun jeex na bëgg nañ aywa. kan man. <laughs> <laughs> bañ a jàpp. mu door de lu dul ay sànni xeer ko def. dama door rek. noonu gën a njaay ni jaaxal moo sama xaaral bu sa eh, daam daam digoon nga ma ay masque démb jox ma ma ma ma jox waa géej waay. <laughs> alaaj hmm? alaaj alaaj hmm? nag lii nag lii ñu tëf tëf nag ah, man day fi mu nekk man day leen rek moom moo ma jaaxal. waaw gone gi nu mu def ba dugg fa. ba dugg Gambie waaw daal question boobu daal moom xaw a tiital moom. man moom ñaar publicité yi si des bee tiital. benn ak ñaar rek. ah corona ji la. waaye. kon benn ko am bi léegi mu dee. ku am benn ku am benn ak ñaar sax a dem. tamit man. dëgg la dëgg la booba laa keefee noppi man. benn benn ñaar bi ngay xeeb sax covid covid la wax. covid la ñuy wax dëgg la de ñoom ñëpp dañoo maquillé seen pub yi ah. est que xam nga est-ce que xam nga ci kanam tuuti kuy bind kuy bind nit gàllaaj ñu ngi ci boole kii gàllaaj yu bare. ñu ngi ci ñu ngi ci bind bindaale ko ci. non da ngay bind Covid 19. ci biir bayra bi. Mhm. eh gisoo gisoo am ñoo xam bu ñuy bind nañ naan def boole ci suuf su marché. <laughs> suufu jàkk. Ah, waaw waaw mooy damaa tax. mooy lieu bi yi nit ñi dajaloo. nee nee nañu day day may bare. mais xam naa Covid ni mu siiwee itam alaaj ci <laughs> ah. Covid. def pub yi daal koy maquillé ci ci ci ci Covid rek. Hmm, en tout dee de maanaam subaar sunu fans ah? daal hmm. man daal affaire du booy bi fi nekk nii. waaw. Euh, yàlla na xel dee rek waaye daal xam naa ni daal. Mhm. Ah, mu def ba dugg biir Gambie googu. waaw te ñu ne rap. Mm. tëj frontière mm, mm, parce que nee tamit ci géej gi lay la la la njort ne fa la ñu fàtte itam bu ñu fàtte tam lu am solo ci wopp ji alaaji mhm. muy ñaan ah koo kay na moom ñaan dafa am solo ci wopp ji de te place ba léegi daal tëji baax na lii hmm? hmm? te man man man man man man man man fi ne fi ne damaa xaw jommi hmm. waaw damaa xaw jommi lool damaa bëgg jël benn système def comme comme comme grand Youssou Ndour ni muy def bu guddee ma toog sama kër def sama benn live Instagram cumulé ko ak ak ak kii di di def samay samay addis. jàng mhm. samay samay xasida. Braham mun nga koy def de weekend alaaji Instagram. ñëpp a suivre. te man sama genre demu kër moo gën a yaatu kër Youssou Ndour. Ah, def ko. man sama kër 600 mètres carrés la. ngay wax say doom di aw. barke waaw waaw. am na ci yoo xam boo fu duggee kenn du la gis ay kaaw la. man man sama kër moo ko ne yaatu kër Youssou Ndour fuuf. kii alaaji mën naa faa def benn live de man laaj yenn saa yi mu jël yenn saa yi mu jël yenn saa yi ma def la confiance nga dugg si man la no yaa ngi may seetaan nga ni ma waaw man la noo gisee li may def. ay <laughs> moom conférence am instant. parce que muy di wax dama amul sax compte yëpp conférence yëpp annulé nañu leen ci koor gi. benn conférence amatul. conférence am sa kër. en ku ne yaa moom sa kër. moom sa compte. alaaji dina créer benn groupe conférence. léegi képp ku bëgg ma ajouté la ci rek ma ajouté la ci. ci whatsapp bi laa koy créé. xaaral alaaji groupe confinement lay wër fi mu toll nii. ah kay <laughs> ah kay. man day doxul ci moom groupe confinement. waaw man ku ne ma demal tooge ma toog. <laughs> dëgg bu confinement sa casque yi du mat ah. waaye casque kii masque yi. laay <laughs> masque yi xam nga ne ay fo la rek waaye 5000 masque kay nag moo ma laaj xanaa maa yow bu ñu jëngoo léegi ñu jënd ko. waaw 5000 rek wallaahi. waaye dama ne dama ne nit ñi mm, bàyyi ñu toog suñuy kër. mooy dëgg de. soleil rek mën nay informer nit ñi. ci mooy dëgg de. <laughs> ci gars yi seen kër la ñuy toog seen seeni machine dóor. dajale ah, ñëpp xam nga li ma la. kenn ku la dajaleel alaaji yóbbu imprimerie ba génnee tasaare mu jeex. jërëjëf nit ñi di ñëw ci rédaction yi. dancaloo bi sax wóorul. waay waay dancaloo bi sax wóorul nag. dëgg Fatou Abdou Ndiaye nee na frère am bii di Malick Diouf dafa réeral permis conduire américain 77 517 90 85 ko gis. gis na ko indi ko gis daal na ko indi waaw. waaw. nañ ñu confiné. kii nee na dafa am benn chauffeuru taxi bu for ay caabi Mercedes ci otoom. Mm-hmm. ko gis nag. ah na ko indi fii. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. Mm-hmm. en tout cas daal. mardi day seef ah, en tout cas day mën day mën teewu ma fi mu nekk nii ah baax na. Ah, affaire yooyu ma cay xalaat de dama ko. mbokk mi nee nañu gis ci moom deret ñoo gis si moom deret di ñoom daal jàpp nañ ne doon koo dóor ba mu dee. ak kanam gi niñ ko dóoree noonu. Ah, ah. ak dañ ko bëggoon tañanee daal di waaw ba koo gaaw suul waaw jël càngaay ba rek sol ko noonu te sanguñu ko yaram bi fees del ak suuf lu ñuy nëbb aussi waaw peut-être comme ni mu waxee nii wax nañ ñu jokkook suñu ay ndaw yi nekk foofu noonu peut-être nañ jéem a jokkook ñoom ñu ñu jéem a def quelque chose ci justice bi foofu ñu ubbi ci ab enquête autorité yi rek duñ ne dégguñu ko ñu ngi dégg. ñu ngi dégg donc buñ mënee dimbali suñu mbokk parce que ñoom neen soxlawuñu xaalis jooytuwuñu kenn pour xaalis lu ñu bëgg mooy faatu gi leer loolu lu ñu bëgg. waaw. bëgguñu xaalis kay bëgguñu xaalis loolu mooy. leen doon jéem a wax naan leen nii naan ay ambassade ba xaw ma laa mun nañu. ñu bëgguñu xaalis. te comme ambassadeur bi tamit dañu ko teg foofu noonu. pour muy taxaw sénégalais yi. dund ak dee moo ci yam taxaw. bien donc nag nañ taxaw famille nii parce que ñoo mënuñoo déplacé wu dem Gambie. Mm-hmm. dañoo ah, kon ñoom ña fa nekk nag di autorité mm-hmm. taxaw ci mbir bii. Mm-hmm. Ah, en tout cas day man day fi mu ne nii affaire bi man man day man day nii et ndeysaan nee nañ xale bu ndaw la. xale bu ndaw la. moo tax di di tàggoo daal. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. lii daal lii daal alaaji. lii daal la kilifay xamoon. day réew moo xam ne léegi loo wax ñu naan la waaye loolu waaye sa waaye loolu jamono maam la woon waaye. Eh. majeur vacciné patati patata. mais lii tamit kaala de. Ah, ah. may ni turu curéer ma xam curéer ban date la nu mu tudd yaayam ak papaam comme ça man ko annoncé kii de may laaj naa ma ndax xanaa koor gi duñu tëdd vingt heures mais li mën a huit heures ñuy wax ni lañ ko lañ ah, naan ko laaj na gis nga keroog li nga waxoon uh-huh. ah, salaamaaleykum uh-huh. li nga waxoon loolu moom mooy dëgg uh-huh. boo passé ay vingt deux heures jëm kaw